waaw dara dëgg. waaw bu rëy. Mm. waaw dana war a xam dara dëgg. waaw waaw dëgg dëgg laa dëgg. waaye sama kii moo jox sama nag. c'est tout tout tout. kon nag tëj boobu dara boobu jigéen du wàññi dara. waaw man dañuy yëngalaat bari. daa yëngal daaw bari nañ ko yëngalaat. yaa gis bari nañ ko yëngalaat ku dugg rëy. yaa gis ne daanaka par kàr bu laal kay ndax li yoon. sëñ bi waa Diop ah. sëñ bi waa Diop ah sëñ bi waa Diop. déedéet loolu du ma sa jeex. Instagram. damay leen toogaayu bi laa gis ñëw na damay xale bu ndeyam jaram bi ñëw na damay defaral leen toogaayu bi laa gis ñëw na xale bi jaram ndeyam ñëw na dugg dugg xel la yomb yomb xel la waaye bés taa gën a gaaw damay moo la baay Ismaïla baay boo bëggee bay de waaw fexal sa baay de laa leen ñëw dur pour mériter ce nord de gloire. Et voilà donc, avant tout d'abord, bonsoir, le PDG de Akasa Holding, j'ai nommé le grand frère de Miyagissé. Rebonsoir, alors le grand Yusudian, le conseil spécial, alors de Miyagissé, et alors Madame Diallo, bonsoir à vous. Et je disais tantôt, Je vais juste présenter et inviter alors l'enfant prodige de Tambacounda. C'est l'enfant chéri de Tambacounda. La voici, la star, la voici, la vador, la voici, la cune, la crème de la musique sénégalaise, le tsunami de la musique sénégalaise. Oui, notre Nyanjo national, notre Chris Mbappé. Et alors, elle est là. Je vous nomme le tsunami de la musique sénégalaise, l'inventeur, l'international, celui national et international. J'ai nommé l'exceptionnel, excepté parmi les exceptionnels, l'international Miyakise. Sous vos applaudissements, alors on applaudit très très fort. Coco Iliana du Sénégal. What the hell? tubaarkàlla présentation bi am na maanaam